Moussa Seydi lu jëm ci jàngoro jàngoroy coronavirus ak tolluwaayam fii ci Sénégal tey akuk moytu gu rëy la ca boole mu ne bu nu teel ndamu dee ci xeex bi donte ay bés yi li nu seetlu mooy lim bi ci ñi jàngoro ji dugg mu ngi wàññiku naka noonu it ñi nga xamante ne ñoo cay wér seenab lim di yokk ci la Soleil la ko xamle moom njiital kuréel ak fajkati coronavirus ci Sénégal mu ne jàngoro ji ju sew la joo xamante daa mën a naxee tëra di mën a soppi situation saa su ne ba tey ci yéene bu an wàllu garab yi nga xamante nag moom la ñuy fajee ba fii malade ya di ak azithromycine professeur Seydi jàpp ne garab yu baax la yu wane njariñ te yit ba fii nag du effet secondaire boo xamante ni seet nañ ko ci bu dërkiis bu jafee faj wuute xalaat géeg gis-gis ci biir fajkat yeeg boroom xam-xam yi nag mu ne loolee aayul lu jaadu sax la li bon rek mooy di bañ a waxee ak xulaay taala coronavirus gi nag jàpp bu baax presse bu Sénégal daanaka làggiloo ko ci wàllu koom-koom ndax ci le quotidien jàng nañ ca xayma gi ci li Covid 19 yàqal presse bi yépp ñeenti milliards ci ñetti weer jàngoro ji tax ñu fomb ndaje yu bari ba ci ndaje diine yenn ñenn ñi njort ngir ndaje yeneen yi ñëw ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye ci Vox Populi lu ñeel màggalu Cheikhul Khadim gi moom ne du moom mooy ki organisé màggal ku tedd ki Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moom mooy ki ci jëli dogal te it mu ne xalifa bu tedd bi ak matuwaay yi ñu war a l yëpp ngir màggal gi waxtaane na ci ak ñoom état bi wàllu diine jëwriñ ji ne dafa sensible maanaam du ko jóg rek wax ca wala bëgg caa dogal ci gàttal ci le témoin Aly Ngouille Ndiaye ne màggalu Tuubaa gi mbiri murid yi la moom monsieur le ministre l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ci le quotidien wax nag ci mbiram maanaam élection yi ndax ay service am ñooy ñi koy organiser mbiri wotey gox-goxaan yi yéenekaay bi njort nag jëwriñ ji wax fi ëllëg waxi tuxal ndax ma nga ca naan ci boobu yéenekaay lépp ngi dépendre ci audit fichier bi ak fi ñu ci toll ci wàllu processus électoral gi dialogue bi nag ci wàllu politique ñuy lépp observateur xëy ne naxee mbaay la ci président Macky boole lu jëm ci wàllu statut ki war a jiite opposition bi nag waxtaan yi moom demul dikkul firndeel rek ci gis-gisu yéenekaay bi ñàkk wóolonte bi ci biir géew politique bi boobaak léegi las ne ak lu mën a xew ci poñ boobee di njiital opposition bi président ko ne majorité bi dañuy fare ak moom président Idrissa Seck la ñu taamu opposition bi ne déet société civile bi moom joxañ ci pays nguur gi yéenekaay bi ne ndawi Macky yee ca ndajeem dialogue politique bi Idrissa Seck la ñu woteel Seydou Gueye kenn ci ñoom ci wàllu dialogue politique boobee moom di ci xamle ne boobee pencoo jéego bu am solo la bu sukkandiku ci jën yitte démocratie Sud Quotidien jàpp ne carte blanche la jox majorité bi ci wàllu tànneef li ci kiy jiite opposition bu Sénégal waaye enquête pataas bu tàng jër la ko jàppee bu nu bàyyee Macky ndax ñu ne opposition beeg non aligné yi ñoom dañ a takk takk ndomb li professeur Babacar Diop njiital FDS moom lu ñeel boobeeb dialogue national ci Vox Populi yi faf nag xëpp suuf ca cere ja mu ne ay caaxaani politique la wàllu xew-xewu jamono lu yéeme ci observateur dib daara juñ taxawaloon ndeke fii ci Ndakaar dina ëllëg danoo war a doon ñi jaayu waaye brigade des mœurs na seeni pexe boole soxna sa jiite woon joojee kër gu bon gone yam fa doon tàggat ak ñu jot a mokkal yëpp noonu seeni kiliyaan boole yóbbu police source moom dikkaat ci coow la woon ca Touba Mbàkke diggante soxna foofee dib responsable benn bokk yaakaar bu fa kalaame doomub jiit leen bu fukk ak ñeent ci at kese procureur bu Jurbel ñu ne jël na mbir yi ci loxoom ca dossier bi yegg na ko comme Missaxya bu jannatu ngir ñu def enquête bi enquête bi jur lu yéeme nag nay résultat xew ca Bambey libération xëy ñu ko di soxna suñu fanaan aw bu rey doomam bu jigéen bu ëmboon ba juróom benn ci weer bi ko gendarme yi njëkkee déglu moom soxna si da doon wax ne du tayeef wari mbiri jinne ki rab ak yeneen la waaye ginnaaw si la nangu ne mooy ki doom ja Mariama Ndolli ginnaaw gàcce bëggoon teg mu ne njaboot gi ak ëmbam ndax mu ne ñaari ci ginnaaw lañu ko may borom kër mu sëy nekk dafa nëbbaale ëmb ca du borom kër gi mooy bàyyi doom ji bi mu ko yëgee nag la tëral plan mu ne bàyyi ba gune ga ne ca wanag ba sëgg ca ndox may waaja a sangu mu doxe ko ginnaaw xoj ko ba mu sedd